Cheikh Mountakha Mbacké Bachir ni nga xam ne at mu jot noonu la koy defee muy dem ca njaareem def ab diir loole def na ko ren jii ne tey jii ci gaaw bi dëppoo juróom-ñaari fan ci muharam atum 1441 ginnaaw gàddaayu yontu bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoog le 7 septembre 2019 sëriñ bi bàyyeekoo na fii ci Touba daal di dem ca njaareem fas yéene faa def ay fan mu nekk ngan goo xam ne at mu jot da koy def sëriñ bi nag bi mu agsee ci njaareem mbooloo mu takk lool ñoom ñoo ko tertu ànd ak moom dem fi nga xam ne moom moo di kër gu mag ci fi nga xam ne Serigne Mountakha Mbacké Bachir fa lay nekk di fa recevoir ñi nga xam ne ñoom ñoo di daayira ak délégation yi fa fas ñëw bi mu agsee nag Serigne bi ki nga xam ne moo di Serigne Fallou Mbacké moom Serigne Bassirou di rakam moom moo ko teertu dalal ko saafonteeg moom daal di koy ziyaara Sëriñ Mountakha Mbacké Bachir bi muy ñëw ci bërëb bi mi ngi ànd ak ay jëwrinam yi nga xam ne moom ñoom lay faral di àndal ci liggéey bi bokk na ci Sëriñ Moussa Naawel sëriñ Cheikh Mbacke Abdoulatif sëriñ Cheikh Aballa sëriñ Modou Rokhaya ba ci ndongay tarbiya yi nga xamante ni dañuy jàppale sëriñ bi ci liggéey bi bokk na ci sëriñ Jili Bass ak ñi nga xam ne moom moo di sëriñ Mountakha di jëwri ni sëriñ Mountakha Mbacke Bachir di jàpp lool ci li nga xam ne moo di hébergement bi ci mboolem ndongo yi nga xam ne bu ñëwee ci njaareem moo leen di taxawu. bërëb bi nag ñi nga xam ne ñoo di waa daara Hizbut Tarqiyyah waajal nañ ko ci njiital sëriñ Atou Diagne ñoom sax bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoom ñoo accueillir sëriñ bi waaye njàngum xasida gi nga xam ne saa su ne daañu ko fi amal bés bu yàlla sàkk bu ñu xëyee ak ci ngoon gi loolee di ndigal goo xam ne sëriñ Mountakha Mbacké Bachir jox na leen ko mbokki téléspectateurs yi seen chaîne académie Minane TV fas yéene ànd ak yéen ci mbooleem lépp loo xam ne day bàyyi ko fii ci njaareem ci diirub ngan gi nga xam ne Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké Bachir mi ngi ko fi amal